jerejeuf mbokum yi ala kulli halin, nag eh, amaa lu aju ci nak gentu jang jawharatul kamal eh, jawharatul kamal nak gentu diko jang baxna waye na lolou ñu leral jawharatul kamal awrad la ci awradu at tariqati at tijaniya moy bok na ci wérdi yi nga xamne dafa bok ci at tijaniya bu ni seen xeetu sikar yi nga xamne bok na ci ku bok ci tarixa bi fo nga diko ñaar nag moo ci am benn nga jël wérde bi ñoo la ciy soññ nga di ko góorgóor lu baax a baax beneen bi ci toppaat bu dee jëlagoo wérde bi di ko faral di sikar demal nga wuti ko la jox al izn izn nag mooy koo xam ne moo la ciy jox ndigal ba noppi wax la yoon yi ni muy doxee nga di ko jëfandikoo noonu jawharatul kamal nag lan la mooy ay salaatu ala nabi yu mat la yoo xam ne Cheikh Ahmad Ahmad tiijaan Tijaaniya mi nga xam ne mooy raisul at tariqati tiijaan Tijaaniya ci aalam bi yëpp xeetu salaatu yooyu moom moo ko tëggoon mu nekk salaatu gu am solo la. jawharatu kamal eh, ay salaatu ala nabi yoo xam ne yu am solo la waaye yu am njëriñ yoo xam ne yu leer la ci anam boo xam ne yu mat a mokkal nag ku ko mën a mokkal di ko jàng baax na lool du caagi na nag boo nekkul ci tarixa bi rek doo ko mën a def. waaye nag dafa bokk ci seen i sart seen i tarixa yoo xam ne koo xam ne dugg nga ci tarixa ak tiijaan ya wala tarixa bu mënti kaa doon daa ay awraat yoo xam ne danga koy saxal di ko def awraat nag mooy lan mbir moo xam ne soo ko xasee ba jël doo ko sañ a bàyyeeti mooy loolu la ñuy wax wér dañu naan ko awraat mooy loo xam ne ay mbir yoo saxal yoo xam ne saa waxtu bu jotee da ngay bàyyi li nga jàppoon lépp dem defi ji ko ba mat nga doog kon na ci looy def kon lu am solo la euh, ñaan la ay julli ci yent bi yoo xam ne yu mat a bari la waaye yu mat a def la rawatina bii nga xam ne moom lañ tijjee muy jawharatul kamal mu bëri njëriñ ci nekk